mbokki Sénégal ak li ko wër ñu ngi leen di invité le 19 juillet bi muy yemook àjjuma fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru juillet ci dëkk bi ñuy woowee Caaxo bile juma nag benn organisation tabaxul ko lu dul doomu dëkk ba muy économiste bi nga xam ne njaay ak jënd rek lay yëngatu muy Amady Sakho te sax dugguleet ci diwaan ba tabaxal na leen fee sa kër mbay fa nga xam ne woy juróom def doon jàngale foofu alxuraan di fay jiite ñoom la njëkk a tabaxal juma bam sa pare nag mu ñëw si dëkkam bi nga xam ne fii moom mooy cosaanam fii la woy juróom nekkoon mu ñëw tabaxal leen bile juma ñu si invité nag le département de Foundiougne arrondissement bu jiloor yëpp waaye département bu Foundiougne ak arrondissement bu Toubacouta région de Fatick ñëpp ñu ngi leen di invité ci ubbite jumaa ji nit nag bu defee lu baax dañ ko war a siiwal surtout koo xam ne ndaw la te mënoon na ko dugal feneen mu ñëw defal ko askan wa fay yeewoo yëpp kon nag mbokk yi di invité tout le monde autorité yi umma islamique bi bàyyiwuñu kenn na ko ñëpp waajal incha allahu rabbi ajjuma yemoog le 19 juillet 2024 ñu ngi ciy invité tout le monde képp ku dégg bi le communiqué mooy sa invitation royukaay mooy nit ki nga xam ne la mu war a def ci goxam mu ngi koy def ñu siiwal ko ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi sa gox ba te fas yéene wu ñu woon def lu meles noonu ñu mun see roy lii alal ji bëri na lool waaye nanguwul sax wax ñaata la ci def li am solo mooy que ne def na ko ngir monde islamique bi def na ko ngir dëkk ba gis ngeen juma ji kaan macha allah bibliothèque boo xam ne lépp lu ngeen soxla si wàllu Coran mu nga fa waaye jumtuwaay yi mucc ayib yi mujjee génn la ñu installé bi la juma karo yi rek car macha allah kon nag lii guléet la si département bu Foundiougne waaye si région de Fatick kon nag mbokk yi na ko ñëpp waajal incha allahu rabbi bu bees ba Sokone TV à partir de midi zéro minute dana fa nekk en live jërë ngeen jëf.